wa wa Sénégal salaamaaleykum wa aduna Ama Balde ak modulo il faut que sénégalais yi xamné lu len discipline mayul mun len ko xagn té Ama Balde modulo amul lenn luy tax lamb ji am lutul disiplin. discipline rewone taxul lamb jojo am ñàkk yar taxul làmb jojo am ñak kilifa taxul lambu jojo am Ben affaire dafa am muy nga faral Ama muy nga faral Modou fokk nga andak yar pour làmb jojo mën am té nak làmb ji dafa am lu koy doxal té lu koy doxal force de l'ordre dañ ci bok nit da ngay am kilifa bul xol ni rek ki nit la comme man wala yalla ko bindu comme nim ma bindé munuma jaay lu saf dedet waye da am dar grade bo xamni ni la yow amoko tay force de l'ordre munul ñew yor sa karange di xol nan ngay amé jam ci bir stade bi di xol nan la mbir mi di réussiré ndax ñom yak taxulé na a indi wu len indi wuñ len fa pour ñu yaq dañu ñew pour défar tay bu dé yow supporteru mod lolu nga nga ñew dajé ben force de l'ordre gémi wala gendarmerie lu mëna doon mu ne la jaaral ne lan mo la téré jaar ne da nga xam lu tax mu ne la jaaral ne bañ nga loru bañ nga dajé ko xamni bokko len xalaat ba indi fa ay problème moo tax mu ne la jaaral ne bu dé supporteru amanga bu le policier yi ne jaaral né jaaral ne bu dee supporteru Modou Lo nga bu la policier yi ne jaaral ne jaaral ne waaye boo bëggee indi giita ngaas indi. boo bëggee indi ne indi xët-xët indi jàmbaar ci kanamu force de l'ordre yooyu dañu lay duma dañu lay duma te bu ñu laa dumaa am ñeneen ñoo xam ne say naataango lañ gis ko mu leen mën nañ cee dugg te buñ ci duggee yeneen force de l'ordre mën nañ koo gis dugg ci te bu boobaa dina gën metti te yéen muy supporter ak muy ñëpp nit nit njaay comme nii ñun ñëpp ay nit lañ waaye normal comme man mi mënumaa ëpp doole force de l'ordre yow sa fukki moroom munoo ëpp doole policier wala sem gendarmerie da nga leen di respecté ñoom la fa yàlla teg jour ba jaaral nii jaaral ni bul jege fii bul jege fii defal li defal li loolu mooy yeggale làmb ji waaye làmb ji reewande yeggalewu ko ak xët xët ak jaay ni dama am doole ah, waaye ah, moolooyee eh, déedéet yuy doxalu ko yar moo koy doxal tubaab bi boo leen fekkee seen réew ak discipline bu ñu mën a def ci àdduna

qui n'est pas acceptable c'est quelque chose qui n'est acceptable foog ngeen ànd ak yar ànd leen ak yar boo leen àndul ak yar làmb ji du am parce que ñi ngeen di jaay reewande faale wuñu leen te làmb ji nag force de l'ordre moo koy doxal